waaw mais gars yi seetaan ngeen match Argentine ak France bi aux Jeux yi non match ñoo xamoon nañ nii lay mel mais li ma ci gën a impressionné li ma ci gën a jaaxal mooy joueur français yi noir yi dem ba ci supporter argentin yi leen wan seen po naan leen danoo feer kon nag coori fayagul de salaam gars yi bëgg naa leen nuyu ku ci nekk seen tur ak seen sant match bi li ma ci gën a ràññee muy cooli bëri na mais action bi nga xam ne joueur français yi ba ñoom ñoo gagné Argentine par la marque de 1 but à 0 foofee nag bu ñu waxantee dëgg fa. malgré France moo ko organisé mais y avait pas de sàcc nag temps bi gis ngeen na mu guddee te it sax France bañal nañ ko seen deuxième bi bi mu ngi noonu mais supporters yi dem ba ci joueurs yi ba ci supporters argentins yi non mais di leen kaañ quoi am na ñoo xam ne dañoo génne seen peau noire di leen wan ne dañoo fier nekk noir nag champs yi nga xam ne kooku di Argentine ba ñu gagné Copa América seen joueurs yi doon nañ ko wëyal di ko génnee loolu nag métti yenn joueurs francais yi ba tax nag tey jii ñoom dañ ko doon fësal supporters yi français yi naka noonu may ñu woon dara joueurs argentins yi ba ci seeni supporters mu doon enfer boo xam ne tey ñoom dund nañ ko foofee ca France mais match bi euh, gis nañ ne avant ba mu jeexee ba pare avant mu jeex coole bëri na gis ngeen foofee ca Bade la mu sifaay wan na ko moo kopp doole. mais yuxu ko yuxu boo xam ne nii lam dencoon ca lan leen doon wax nii moom la ñëw pour bëgg ñëw wane ko ne ci terrain bi day gis joueurs noirs yi nekk foofee. maanaam loolu la doon fubale maanaam match bi jeexee war nañ ko waaye xeex bi ñu fa doon xeex noonu c'était quelque chose boo xam ne nii euh, neexul ba neexul mais c'était c'était très très compliqué euh, mu ngi ne pour les Argentins mu doon match boo xam ne jot naa jàll mais ñëpp xamoon na ne fii lay mujjee kon nag ñaari africain jot na noo qualifié ci demi-finale muy Égypte ak Maroc Égypte mooy dajanteeg kookee ñu naan ko France demi-finale moom mi ko organisé Maroc dajanteeg Espagne demi-finale mu doon match yoo xam ne. nar na neex nar na yëngu yal na africain yi jël ko yàlla na ñaari africain yëpp final yu jël ko yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def jàmm ci yéen yi képp ko xam nag abonné goo suma chaîne YouTube bu ko taay duggal suma bio TikTok di nga gis dogo YouTube boo ko bësee da lay yóbbu chaîne YouTube bi nga abonné activé cloche di seetaan vidéo ba mu jeex ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci